Abdoulaye Wade day eh, mere na Idrissa Seck lool maari di tali ubbil mbir mi yéene kaay nee bu ñu sukkandikoo ci usiteel day re song yi nga xam ne tam Idrissa Seck mi ngi ko koy song day mbir mi mi tile ko lool lool lool waaye itam ñoom ñi ngi préparé day loo xam ne waaw lu saf saf te dooloo lool ak song ga lu jëm nag ci wàllum Karim Wade googee waa usiteel daal ko nu mu sa tontu ko Idrissa Seck laa wax la muy préparé daal mooy projet de société di dem nag daje ak sénégalais ya bu paree daal di riir wutali politique sénégalais yéen kaay gi ne Karim Wade woo na Wally uh-huh. ba coon Seck téléphone waxtaan lañ yàgg yàgg laa la wax eh way Samba njiital parti réew mi di Idrissa Seck day waaw digganteem ak waa nguur gi mel na ni guerre la guerre pire waa réew mi day la ñuy naqaru daal mooy ndimbal li nga xam ne nag doon nañ ko yóbbu ci kaso Rebeuss bi la kilifa yi nga xam ne kon ñoom lañ dénk kaso day la di bind ab leetar eh way Samba bind ab leetar de gars yi dëj ca le waaw Idrissa Seck nag day dimbali waa kaso Rebeuss boobu ginnaaw ba mu fa génnee ba léegi ni le waaye bi yoon tey dañoo yóbbu ndimbal la kilifay nekk ca kaso ne kon ab lettre di ab correspondance ne ah, kon ak ministre Sidiki Kaba ñoo a gindi waaw laa wax moom Idrissa moom mais eh, Mamadou Lamine Massaly waaw mere na lool ci la quotidien yéene kaay waaye Abdoulaye Wade ji de song yi nga xam ne nag moom la kon Idrissa Seck mi la daal di song Wade Wade moo ko mit lool last jury d'honneur ba nag waaw su lu jëm ci wàllum protocole rëbës ko ok waa APR ak waa eh. ne xam nga ñin ci jëf la ñuy yëngu moom Idrissa Seck ci wax il est dans la parole et nous dans l'action waa PDS waaw nee nañu Idrissa Seck daal bi su bëggee yeeg ñin na liggéey na Alioune Fall ne maa ngi sàkku ci Idrissa Seck daal mu jël loxom boobee daal di koy teg ci kaamil waa libération yéen kay ne Samuel Sarr day waaw yekk di maa la ko wax dina ko saaga de Samuel Sarr ne ne day seetal xaalis boo xam ne kon bu Quotidien yéen kaay nee na ndimbal li nga xam ne ne ma ngay jóge ca bitim réew wàllum xaalis waaw président Macky Sall day moo gën a riche Abdoulaye Wade uh-huh. yéen kaay ma dama jàngi ne waaw parce que lu tolloog juróomi junni ci ay milliards moom la Macky Sall kon am ci ñeenti at yàlla te Abdoulaye Wade nag ñetti junni ci ay milliards yu taftal kon juróom ñaari téeméer ci ay millions ci fukki at ak ñaar kon kay banlieue ba war naa neex ak conseil des ministres nee na da ngay day fi mu nekk nii foo sànni mbar mu dag laa la wax sur quotidien ne dëgg la da ngay kay ah. ay doléance am laa lay wax nii la jël kon teg ca kaw taabal ja le populaire ne ay faratay neen urgence fiir ca banlieue ba ña ngay xaar ndimbal loo xam ne nag ma ngay dugal kon ca Macky yàlla yi dugal ca loxom ab miracle waaw parce que gis nga Pikine Guédiawaye ak Dëngéej kay ah. ñoom daal fi mu nekk ni lée toroxaange gi nga xam ne moom la askan way dund day ña nga toog di xaar rek ay jafe-jafe yu bare bari sax wàllum ñàkkum kaarange inondation ya wàllum assainissement nit ñu bëri ñaak buuxante kon ca biir kër ya ba ca sax wàllum wutum liggéey ga nag ndaw yi maa la ko wax xoolal ma Pikine gaay a ah. wàllum sécurité daal la ñuy jooy waaye gis nga keroog bi ñu ne président a a a gone goo gis moo ne liggéey danaan la chômeur laa yéene kaay gi de géejawaay gaay inondation ñoo leen tere nelaw laa la wax waa Medina Gounass ah ñoom daal nee nañ bëggatuñ léegi ku leen di ku jëf daal la ñu xam waa APR yu Sam Notaire gaay ñoom moom ña ngay xiin xiin yi nag xamuñ sax fu ñu war a taxaw laa la wax parce que nag ñëw Macky Sall bi day waaw nee nañu ci journaliste yi lañ ko yëgee eh way Samba le quotidien ne kay ne jigéen ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk diwaanu Pikine gaay ah APR waaw dañ ne woon duñ katandu président Macky Sall laa la wax mar de parce que ñoom daal jigéenu APR yu Pikine yooyee jàpp dañ ne seen parti bi daal dañ leen a wégul faale wuñ leen aucune considération laa la wax nee nañu parti bi daal xam nga kañ leen leen di soxla bu manifestation politique c'est amee ne maa la ko wax waaye heureusement Marème Faye Sall dikk na fay na lakagale dalal na leen de ci a Mariama Sarr ministre Moustapha Diop ak député Awa Niang yéeni kaay ma jama jàngi ne xaalis la day ma ngay tuuru ca banlieue ba laa la wax ma ne la xoolal ma Mor Ngom ak Farba Ngom waaw juróomi million lañ ci loxo Alioune Sall meeru Guédiawaye aw ngir commune bu ne ñu jox la benn million Alioune Sall yi daal dina cay dekoon dix wax mu waay ngir ñu jënd ay mbubu di ay day daal dina tontu nag Omar Faye leeral askan wi lé eh, di tribune yéene kaay eh, ginnaaw njiital leeral askan wi ma attaqué ne kii di Abdou Karim Sall ak waa ARTP Abdoulaye Xuma ne gis nga nguuru Macky Sall deuxième alternance fii waaw yorin gu mucc ayib la ñu wax jëf yu bon ñi doon def dootu fi amati te gis nga Abdou Karim Sall waaw du ma wor liggéeyam be eh, ñu ko dénk laa dem na ca lamb ja tribune soox ne Pape Abdou Fall day daal dina amati lamb ju rëy diggante boo maa la ko Sonko ak Gris Bordeaux waa Fass ak waa Parcelles ña ngay lu ñu mën laa la wax le 23 bi face a face encore te monument de la renaissance africaine tey waa Parcelles tribune yéene kaay ne waa Parcelles day waaw tey média Damanville ah jël nañ ko ba réussir nañ pari ba laa la wax ak Moussa Sy moom Moussa Sy moomee rafet la bu baax a baax liggéeyu tey média keroog ca Parcelles Assainies laa la wax <laughs> alaaji ginnaaw géejawaay pare Parcelles Pikine na ci topp de président Lamine Gueye ak ñoom day dime moo tax boo paree ma ne la alaaji